dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen a kaay ñu xëyandoo yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa maître Amadou Diallo mi nekk président Amnesty International section Sénégal nee na ñi nga xam ne ñoo faatu ci nguurug Macky Sall gi maanaam bëri na lool bi ñu ko xayma toll na si juróom fuk fukk benn maanaam cinquante et un xam ne faatu nañ ci ayug Macky Sall gi am na ñenn ñoo xam ne ci bërëb yi ñu leen denc maanaam lieu de détention yi fa la ñu faatoo ñoo xam ne ci manifestation yi ñu faatoo moom maître Amadou Diallo nee na nag lii maanaam mënu koo nangoo yéen a kaay gi di li Mbobo mi nga xam ne fan yi ñu génn moo génn àdduna tax na communauté Mangagne bi ñoom ñoo ngi sàkku yoon def liggéeyam ci mbir mi yéen a kaay gi du l'Observateur nee na lu jëm ci wàllum faatuk François Mancabou enquête bi jamono ji commencé nañ ko a kaay mi nga xam ne moom la ñu faatoona fukki fan ak juróom-ñaar weeru juin ci diwaanu Ziguinchor ba léegi jébbaluñ ko boroomam corps bi ñëw na Ndakaaru démb waaye nag tey jii la ñu koy autopsie waata ndax ginnaaw bi ñu ko njëkkee autopsie ay mbokkam dañoo wax ne autopsie boobee jaarul yoon ndax Idrissa ko rey loole loolee moo tax tey jii ci hôpital bu Grand Yoff dinañu fa defaat beneen autopsie yéen kaay gii di Le Quotidien nee na étudiants yi nekk ci université Gaston Berger mer nañu ba mara détaillé li nga xam ne moo leen metti ak li leen merloo mooy restaurant yi nga xam ne moom la ñu tëj moo tax Sud Quotidien nee na mboolem li nga xam ne ay restaurant la fa étudiants yi dañu ko saax-saaxe yéen kaay gii di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa maître ne Diallo président Amnesty International section Sénégal nee na lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat loolee dañu ko war a teg ci suufa ndax Macky Sall bu ko jéemee def mën naa andi giraawaaliku njombe ci réew mi maanaam kaao Sénégal mën na cee dugg ndax Abdoulaye Wade bi ma ko jéemee lu toll ci fukk ak ñeent ñàkk nañu ci seen bakkana ñooñu nga xam ne ñoo ci faatu woon ci jamonoy Abdoulaye Wade bokk na si sax li tax ñu amal fi ab référendum Macky Sall tey mu bëgg a bëgg laajaat ñetteelu mandat te bu boobaa maanaam nag musiba rek lay andi ci réew mi te nag ñi nga xam ne ñooy homme politique yi maanaam dañoo war a bàyyi fen yeeg kàcc yi nga xam ne moom la ñu nekk ci réew mi homme dañoo war di respecter seen i kàddu xëy fekk fa professeur Mamadou Diouf ne nee na élection législative yii nga xam ne moom la ñu nekk ay présidentielle anticipée la yéene kaay gi di évidence xëy di ñu xibaar naan ñu Serigne Fallou Mbacké mi nga xam ne mooy président conseil départemental bu Mbacké jóge na ci coalition Yewwi ndax moom dafa gis na leader yi nga xam ne ñoo nekk ci Yewwi dañu ko trahir maanaam dañu ko wora ba pare amuñu benn considération ci moom yéene kaay gi di direct news ñu xëy fekk fa Lamine Thiam bu PDS nee na yàggatul dara Abdoulaye Wade dina ñëw ci réew mi yéene kaay gi di bés bi ak réew mi ñu xibaar naan ñu Babacar Diop maire bu ville bu Thiès moom ab otom dañu ko sax-saxee journal bi nee na garde corps Ousmane Sonko yi la ñu tuumaala mbir mu ni mu demee journal bi nee na coalition Yewwi seen caravane bi bi mu ñëwee Thiès docteur Babacar kër en tant que maire dafa bëggoon a jiite li nga xam ne mooy caravane bi si biir Thiès loolee nag la garde rapprochée yu Ousmane Sonko yi lànk ba tëdd sa naaj wa Babacar Diop yàq nañu ab otom journal bi nee na ma nga soo hôpital ba jot naa porte plainte ca diwaanu Bunkilinga foofee tamit jàppante bu metti moo fa amoon diggante coalition Yewwi ak waa Benno Bokk Yaakaar am na si ñaar ñoo xam ne am nañu ci gaañu gaañoo yéen kaay gii de la sa dama wàcc na ci terrain bi ma biir Ndakaaru di battre campagne di jàppale Amadou Ba ak Aliou Ndoye yéen kaay gi nee na Abdoulaye Daouda Diallo ak Cheikh Omar Anna ñoom ñoo ngay toj Podor du yow boobee démonstration de force bu doy la Abdoulaye Daouda Diallo ak Omar Anna di wane jamono ji ca diwaanu Podor yéen kaay gi di Rewmi Quotidien nee na kenn du Ousmane Sonko ca diwaanu Tivaouane bi muy wax ba gis nga xam ne mooy activité yi opposition bi defa te loolee jaarul yoon ba tey ci journal bi di réew mi quotidien ci xalima ak Assane Samba na lii nga xam ne Ousmane Sonko def na ko du lu bees ci RTS ak opposition bi ndax Youssou Ndour defoon na lu mel nii ak maître Abdoulaye Wade yéene kaay gi di Source A nee na Barthélémy Dias dossier Petro-Tim bi maanaam wàllum pétrole beeg luubal gi nga xam ne moom lañ ciy wax di ci tudd Macky Sall ak Aliou Sall la Barthélémy Dias sulliwaat yéene kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu toppoon ci concert de casserole bi nga xam ne doon na ko amal yéene kaay gi di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi jamono ji ñoom dañoo am confiance ne dañuy gagné li nga xam ne mooy élection législative yi Ousmane Sonko nee na coalition Yewwi Askan Wi dafay gagné waaye moom bu du nekk premier ministre Macky Sall yéene kaay gi de la sa Askan Wi def nañu lu dara jëruta ca diwaanu Mbour ci ba Ousmane Sonko bi ko gaa yi na ay ndax Ousmane Sonko moo fi ñëw tey du ñu xiif ndax Ousmane Sonko moo fi ñëw loole la askan wu baree bari génn démb ca Mbuur di ko wayal Ousmane Sonko journal bi nee na coalition Yewwi Askan Wi sa diwaanu Fatick foofee tamit askan wu baree bari ñoo génn di mañax mañax yi Ousmane Sonko daan nay wax ak ndaw ñi nga xam ne ñoo war a jëli seen carte d'identité yi daan na leen wax tamit ne bisub élection ya na ñëpp génn dem vote ji yéene kaay gi nee na Aminata Touré moom ndaw ñee yéen kaay gi de la turbina nee na Farba Ngom ñàkk na maatama li nga xam ne moo ko waral muy giraawaal yeeka njombe yi nga xam ne moom la Farba Ngom dëkkee yéen kaay gi di record ñu xëy fekk fa Kalidou Koulibaly moom nag wax na li nga xam ne moom la fas yéene def ci club bii di Chelsea yéen kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Gris Bordeaux nee na combat bi nga xam ne moo war a dox digganteem ak Balla Gaye numéro 2 Gris nee na daf koy duma daf koy waaye tamit daf ko bëgg a daane ngir fayul tafatina